ci Serigne Touba lum ñu jàngal ñun ñi ay soudani al maghribi nañu africain de l'ouest di sukkandiku ci Baye Niass lam ñu jàngal ci panafricanisme religieux fiti ci Nigeria, ak Tchad ak Cameroun di le nak lu ñu suñu mam Abdul Aziz si Dabakh jangal néñu ñu leen yore réew da ngeen di faté sen bop jital sen ci biir loolu nag laa bëggoon wax ne Thiès Thiès dafa un très grand centre industriel gaa yahoko, Khalil ko xale yi ñu ci ay Jakarta ñun avons nañu projet avons nañu prototype dinañ leen ko wan pour defar Jakarta fii ci Sénégal duñ ko jëlee Chine wala Italie fii nañ koy defar ci ay usine xale ji ci liggéey nous pare nañ loolu suñu projet boobu ba pare mais la ma insister fii ci Thiès le Sénégal di ngeen dégg une temps dafa am ci affaire nationalité parmi les candidats man Mamadou Lamine Diallo benn nationalité la am Sénégal Je suis école polytechnique de Paris suis une nationalité bu suis la banque mondiale di États-Unis wutuma une nationalité kon nag am sañ-sañ def déclaration sur l'honneur signé ko que je suis exclusivement de nationalité sénégalaise mu leer nañ suis

c'est pas parce que les Français beaucoup ko ñun nañ ko war pas jël téye ko suñu parce que lu ma leen di wax Sénégal à la tête de l'Afrique de l'Ouest Mon mooy suba incha diriger le monde à la fin du siècle et je vous promets en 2040 2045 Solène leen wàññee fukki comme koom yu gën a mag ci àddina bi Sénégal ak l'Afrique de l'Ouest donc le plan de def ñun dañ ciy sóoraale Afrique de l'Ouest suñu nous kaaraange dañ aller sóoraale la sous-région xam sous-région bi bu kon nag ñun dama bëgg mu leer naññi nous sommes des panafricanistes avec Cheikh Anta Diop ak ñoom Baye Niass ak ñoom Serigne Touba ci loolu la ñu loolu la gëm loolu laa fi bëggoon wax fii ci Thiès parce que Thiès fii la bañ fekkee baax Thiès fii la orientation politique fekkee baax Thiès parce que Thiès mooy woon yoon bi mooy woon yoon de la liberté le loon de la responsabilité Thiès moo ko fi mës a wane ñu ñëpp ci Thiès nañu jàng loolu laa leen wax di gërëm waa Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu